par rapport aujourd'hui avec peut-être campagne tiiteekul hmm, euh, wala on On est war programme donc ça c'est évident ñu outil li et et parrain mais est-ce que virgule virgule bi mu jël waruñu daal a mën si mois une ñu dem 2024. bi président Sal veut que de renoncer pas renoncer ça hmm. parce que quand je dis renonce. peut-être d'ailleurs nekk loo ne euh, la mais quand le président Sale dit que de les élections yi di ñëw man duma ci bokk parce que loi bi lool la wax. yaakaar naa ne que amoon na ay nit yoo xam ne dañ dem bu buntu fan. Hmm. boulevard de la République. ba hmm. palais lañ dem taxaw ne dañuy féliciter le président Sall. après on a vu ce qui s'est passé barki demo Ndiaye fii la mamboy jaw taxaw. violé loi bu euh, Ousmane Ngom à partir. li nga xam ne que moo di poste jàpp centre-ville. moom laa lay wax rek. bi mu nee du def ay nit dem nañ ba foofu di yuuxoo ki di tëgg ay tama après on sait comment ça s'est passé. Hmm. barki Demba Ndiaye fi la mam boy Diao jaar ci VDN bi baare ko wax limi wax ba paré mu jéewul fenn malik Gakou dañ ko fi gazé temps yéene arrêté cortège am. Hmm. actuellement yaa ngi may wax nek Abdourahmane aussi il est en train de hmm. subir cette même situation. xam nga li mënul continuer. et tout le temps nit yi dañuy euh, faral di wax. on doit se diriger précisément fana xam ni moy mooy zaanu Kébémer la. yaa may wax ne que. on doit se diriger vers des élections transparentes élection transparente moy xam nga lan képp tu jouis de ces tes droits civiques tek ko ci yone conseil constitutionnel appliqué ko yow nga dem. mais nak, il faut rappeler que doit y avoir un filtrage très important concernant les candidats parce que dès que vous venez au Sénégal yow ñun nous lay wax qu'il y' a plus de 200 candidats mais c'est quand même inacceptable il faut revenir à la raison. Mm. et respecter je pense que cette population. Mm. Euh, bi nga il ne mérite pas euh, ces choses là mais nit bi nga xam ne day dem parrainage je ne vois pas la raison bi nga xam ne euh, war nga ko tere wala war nga ko wax sa cortège bi du bouger ça ne doit pas se passer comme ça. on est à l'approche des élections ñi ngi pour que élection transparente am sérénité am stabilité am mais su fait que nii déjà mi ngi commencé da lay wër à l'approche des campagnes pour les élections de 2024 sous candidat yi il peut y avoir problème amna ay euh, campagnes yo xamné ne na fi amna aujourd'hui ay élection yo xamné ne na fi il y avait une certaine violence hmm. parce que nit yi ben stade bo xamné suñ fa tollee hmm. daf leen di jaral ñu def peut-être lo xamné nous on ne cautionne pas la violence ñu yalla ay xiiroo ngaño di am ci bi dëkk bi je pense que les forces de l'ordre si aujourd'hui kenn mi ngi dem di wuti ay parrainage am suñ ko mënul encadrer vraiment nañ ko bàyyi mu dem moo gën tey jii ñu koy bloquer wala ñu koy indil ay jafe-jafe ay jafe-jafe yoo xam ne vraiment kenn du si gagner et que je pense que nous on doit pas être dans ce stade là fallo. il faut revenir à la raison. alors donc mi ngi ne woon ki nga xam ne moo di Abdourahmane Diouf donc euh, côté jam da nga daal di euh, fa nga xam ni it euh, mooy ko ko mer fu mu toll nii nag xamaguñu li nga xam ne moo di raison yi. Mhm. mais ñi daal di xaar dina xam ne moo di direction bu awalem daal ñuy war a mën a leeral par rapport ak wàllu

du jël li nga xam nekk les moyens de l'État mu si daal di combattre son adversaire wala comme sax euh, son opposant alors ñu bari japp ni Ousmane Sonko lay daal di def li nga xam nekk moo référence ak kàddu yi nga xam itam ko euh, déclaration bi nga xam ko daal amal samedi bi ñu daal di génn alors Mamour. Euh, ñu mm-hmm. gis ni li nga xam nekk moo Ali après les attaques de Mame Boye Ali Guy Ndiaye ñu gis muy daal di brûler le président Macky Sall ndax japp nañu su toogee nak du jël li nga xam nekk euh, état moy yi nga xam tam amna na ko mu koy xeexee li nga xam nekk euh, un opposant wala comme euh, son opposant principal alors Ali Ngouille Ndiaye bi nga xam il a été toujours neutre sur les questions d'Ousmane Sonko tay mi ko ti yodde li nga xam nekk moo donc il a tout calculé qu'un jour viendra mu daal divulguer li nga xam nekk ce qui se passe au cours de la République xam nga il est très difficile de ngay comme yenn euh, mbir yi. Hmm. di jégalu aussi les internautes hein, parce que amna ño xamné dañuy wax pour dañuy euh, insister pour ñuy wax olof bu baax si si si bir émission bi mais aussi amna ño xamné euh, peut-être que ils ne comprennent pas le wolof motax tax ñuy jéem des côtés mais dinañ ci gëna a xel. bu bu baaxa a baax hmm. légui peut-être que je vais prendre le cas de Mamboy. Hmm. bi Macky Sall waxé ne que Amadou Bala mu dem match Sénégal Algérie mu dem ñu ne ko dugg ci stade bi. Hmm. ñu peut-être que. non c'est des choses euh, est-ce que est-ce que nekkul di di euh, du hmm. ku nekk mën nga ci am li nga approche. mais man dama dans ma perspective dans ma conviction ak li nga man mom est-ce que ay bluff au fait léegi dañ toll ci jamono jo xamné il n'est plus facile de détourner une seule partie de la population. Hmm. parce que xam nga lan la sénégalais ñom ñoom ñoo nekk en avance sur l'actualité dafa mel comme ñom dañuy seetaanaat instant bi ni parce qu'ils sont trop en avance sur l'actualité bi tollootuñu ci jamono jo xamné un homme politique mën na di détourner un seul pourcentage de cette population là. donc japp na ni ñom do nekk ci voie boobu noonu instant bi ni c'est entre eux au fait man lool lay wax. ok damay japp ne que c'est entre eux parce que nit ki mënoo leen pendant tant d'années yenn poste yi soo ko peut-être c'est grâce à lui nga xey un bon jour ay élection ñëw mom muy demee ni légui ñom tay lañuy soga xamné que ñom ni ñuy doxalé c'est pas normal ñi di wax ni gën di wax nekkoon seen bi di wax tay lañuy soga xamné que cette population est en train de souffrir. Mm. ñom tay lañuy soga wax né que injustice dafa am ci biir dëkk bi. Mm. tay lañuy soga xamné que Ousmane Sonko liñ ko tek du dëgg du yoon. Mm. il ne faut pas prendre les Sénégalais à des personnes yoo xam ne kenn xamul lan on n'est pas au Comores wala Madagascar. leneen ak mm. leneen Sénégal mom lañ nekk. Mm. am na ay mbir yo xamné sokay wax man yaakaar naa ne demal ci ay dëkk yo xamné sax kenn xamu leen kenn xamu ko il faut revenir à à la raison et respecter ces Sénégalais là. Mm. donc je pense que si côté bobu sax ñun euh, duñ ci am li nga xamné mom moy ay jiixi jaaxa wala ñu ci interroger ou des questions fallu ok moo tax la il n'est plus facile de détourner une seule partie de cette population. tout ce qu'ils sont en train de faire c'est seen biir là seen biir la seen biir la léegi imagine toi imagine imagine ah mm-hmm. ñoom seen on a dit Ali Nguy ñu ne ñu Amadou Ba mm. Mame Boye Diao nee na waaw léegi suñ demee ba si biir liste génn ñu gis ñoom à leur sein y a plus de cinq candidats ñoom kese ñooy c'est juste une question que je pose en fait me poser question avec. de Merci. mais si parce que euh, <laughs> loolu moo donc si le conseil constitutionnel fait de la haute politique parrainage yi jaar nous ñu exactement ñan comme nous na dit, nous avons si c'est euh, sa présomption d'innocence le conseil constitutionnel va tey à qu'il y a des considérations, na continuer di daal di Fallou parce que direction générale des élections pour la première fois ñu dégg ko ay polémique semaine bi nga xam ne euh, hmm. moom la ñu mujjee woon génn dafa am ay kàddu yoo xam dama la ko doon wax dama ne la si le conseil constitutionnel fait de la politique hmm. wax li nga xamné mom moy droit hmm. Ousmane day bok ci élection yi mais bima gissé li xew barki démb bi procureur bi waxé avocat Sonko yi ne carte gi lérna na ñu dem ba ci bir mu men dañ ko wo biñu joxé décision bi Mercredi, il a fallu que vous mettez la pression. Ça cause problème. Man, je n'avais pas de doute concernant encore la présence de Ousmane Sonko sur les fichiers. Hmm. Mais si on le processus que vous suivre, il y a un fallo. Vraiment, qu'on a commencer à détailler. Il ne faut pas oublier aussi que l'un peut-être on n'en parle pas. Euh, image bien, nous avons ça veut tout dire alors hein? euh, le président Macky Sall Amadou Ba euh, c'est c'est ce que je suis en train de te dire. Euh, Diouf Sarr Boun Abdoulaye Diallo mais quand même. Mhm. l'une une date de transition ça, nous restons toujours par rapport à ce nga comme dit ce gouvernement wala euh, les anciens composants de temps du gouvernement du président Macky Sall. Mhm. alors tu dit, euh, il y li nga comme dit que dissous euh, li nga xam que le gouvernement tout d'abord du beuy bëri dañuy le pourquoi au soir euh, ba cour suprême débouté ki nga xam modi Ousmane Sonko peut-être pour li nga xam que alimenter l'actualité wala kon peut-être ñu bàyyi mbiru Sonko bi nga xam tam cour suprême débouté nako euh concentré aussi ñom le fait que ñu ne dissoudre dinañ li nga xam que gouvernement bi alors euh, nous avons aussi jàpp euh, précipité parce que 18 gouvernements gouvernements, xam ni formé un ben gouvernement comment le comprendre. xam nga commencer. C'est que le président Sall il est imprévisible. Hmm. le président Sall c'est président parce que tu as le lundi bi doon il est imprévisible. Hmm. Madame, moom comme si des jouer à un jeu de cache-cache. Beaucoup te diront que c'est un fin fond... fuité en politique. Beaucoup te diront que c'est un fin fond politicien. Il est fuité. Mais Ousmane aussi, il sait faire de la politique. Et c'est un très bon politicien. ak ñeneen ñi nga xam ne peut-être euh, ah, tey jii nii ñu ngi leen gis. non non non non non naan tout le temps que ni Ousmane Sonko. man euh, il faut non non c'est grâce une expérience politique am. déedéet non non non c'est que xam nga euh, lan mooy problème bi. mais Mamour attaque yi nga xam Ousmane Sonko dafa am ay exemples yoo xam ne daf si tiré. 5 Pape Moussa moom maa koy man je suis pas Pastef beaucoup ma léegi le mal est tellement profond ben tey jii soo ben dañ nan sax ah kii de xam naa ne kii Ousmane Sonko alors que c'est pas comme ça dafa am ay nit yoo xam ne dañ fi kan Khalifa Sall ak Karim Wade Khalifa bi bi ñu ko problème amna. dafa gëm li nga mon justice am la théorie de la caisse d'avance ñu liquider ko sur le plan politique Karim Wade bi ñu waxee ay mbiram créer mon mu confiance à cette justice Nous liquidons sur les plans euh, sur le plan politique Ousmane Sonko daf leen wax ne que je vais pas me laisser ñu yob à l'abattoir loolu motax Siré mu mais la différence est-ce que non non Allez-y, allez non non attends Allez-y. aujourd'hui Karim Wade ak Khalifa Sall dañ leen réhabilité. Hmm. parce qu'ils avaient perdu li nga xam ne moom mais ñoom danoo defoon non attends ma ñëw mais ñoom danoo defoon Ousmane Sonko fii da ko da ko da ko seetal li nga xam ni itam peut-être war a a étiqueté da ngay da ngay euh, parce que dañuy naan tout le temps que ni certes jàpp nañ président Macky Sall day jaay doole waaye képp ku mu euh, pine soo xoolee ba si texte yi am na loo xam ne itam wax na ko fa saa diir dire nit ñi peut-être suñuy wax moom mu ñu xool texte yi xool naka la war a mën a def peut-être euh, pour daan

peut-être euh, grâce il faut que nous ayons peut-être les voies de recours hmm. concernant le cas de Karim mbir bi dafa de hmm. Il y a même pas quelques temps si lañ il peut être candidat et il y a un problème hmm. parce que nous avons ñuy wax que somme d'argent à est-ce que va ko verser de même que nous nga un Khalifa Sall si Ousmane Sonko était sur les mêmes pas là sur le plan politique kon d'autres ko dit, je ne vais pas me laisser à l'abattoir si Ousmane Sonko était resté sur cette position là jaar ñom fuñu jaar kon niñ len def non mom lañ koy def. Hmm. ana Karim Wade hmm. mi depuis ñaata année mënul sax wax ñi ñi ngi naan day ñew ñi ñi ngi du ñew ak regarde le cas de Khalifa Sall parce que il y a une très grande différence man fofu lay défé li nga xamantene ne moy la part des choses parce qu'il a vu ses frères ak ñoo xam ne ñi ngi woon ci langum politique bi ñu écarté leen moom s'il avait fait la même chose il ne serait pas à ce stade là. Hmm. loolu moo war a tey jii ngay dégg ñu bëri ñu naan peut-être que Ousmane est en train de euh, vivre ses derniers moments. Hmm. difficiles dans la vie politique. ces hmm, derniers ces euh, non mais effectivement parce que yow gazé nañ la xotti nañ sa yére tëj nañ sa oto tëj nañ la tej nañ la sa kër pendant 55 jours. tey jii yaa ngi pavillon spécial. Hmm. mais kooku noonu su génnee lan nga ko mën a après. il faut faire la part des choses oh. il faut faire la part des choses. mais euh, mais Mamour euh, encore une fois mu nekk euh, loo xam ni itam développé na ko mu am solo mais ñu bëri jàpp ne ni itam des fois attaque yi nga xam doon na ko daal attaque est-ce que doon na dissocier exactement institution bi nga xam itam président Macky Sall doon na ko daal di incarner ak le chef de APR. Il y a des discours yo man des discours politiques. discours le ah. président Sall en 2012 la que nous allons déloger le président Wade. Hmm. moi fi wax. vidéo fi président euh, Sall bobu non moom on a les moyens de sortir 100 000 à 200 000 jeunes ci des discours politiques président Sall mo que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ce sont des discours politiques ce que Ousmane fait ce sont mais là euh, <laughs> Il opposant parce que a une protéger quand même nit bu taxaw ne man y a arme nañ amul nit bo ne la taxaw pour la candidature du président Sall nañ jël ki njaasi amul nit bu taxaw fi qui nañ dem ray Ousmane Sonko. mais euh, est-ce que japonais itam peut-être cible ce sont des discours euh, politiques cible bi dafa cest à attaqué président Macky Sall ak attaqué Fallou xam na du c'est-à-dire yor jaase peut-être Sonko la doon attaqué. mais Sonko amone ben institution bu mu incarné contrairement à le président Macky Sall bi nga xam ne tam instant bi ni immunité présidentielle da koy incarné soo fa différenciation rek day indi problème. parce que si suñu waté si ginnaw le président euh. Sall le président Sall était dans la même position que Ousmane Sonko avant mu mu fi

nañ waxante dëgg lan moo ko gañaloo fii la yor lan mer gàddu nekk fii la ñuy toog am na bis boo xam ne mu taxaw ne Ousmane Ngom du organiser élection yi. mais après lu mu def mu dem mu dem dugg si àll bi. non dem organiser si ay. Euh, euh, <laughs> ay campagne am ay léppam. su fekkee euh, ñeen toog fii di xeex mais ñeen mais ñeen mais ñeen mais ñeen toog fii di xeex mais loolu leçon la leçon la Mamour. loolu moo tax ñu bëri naan Macky Sall am na loo xam ne dund ko parce que bi bi muy metti amaana moom taxawul. yow si côté boobu noonu moom ngay waxee. Euh, mais si on parle lay waxee mais dafa xam lii jëmul kër mais dafa xam ne attaque kii jëmul kër. non non Fallou <laughs> su fekkee discours politique la rek kenn mënu ko fi dindi. Ousmane Sonko man jàpp naa ne que lépp lu muy wax nii rek ce sont des discours politiques. jërëjëf merci beaucoup ce n'est simplement que des discours politiques. <laughs> internet yi ñu leen di remercier ah ñoom Xaar Mbaye ñoom Alioune Touré euh, ñoom Fallou Diop merci sama trondo